yee moomoo naka mu maa ngi lay ziar. delloo ziar. namm naa la waay. maa la raw naka affaire yi. ñu ngi ci kaw ci kaw. kër gi la maison. amee kontaan naa de. tey moom tey moom da ma defal surprise bu rëy. mais yoon la yow danga bokk si si affaire yi. waaw mais te da ngay soppe soppe nit ñi. et eh, lii daf ci baax ah. sax. daf ci baax ñu ñu waxtaan. déplacé wu ñëw ñëw seet si gars ah. yi. fekk fekk si la. kontaan naa sama xol sedd na vraiment ñu ngi lay dalal jàmm. merci beaucoup kontaan nañu baax a baax. naka Alpha yaa ngi koy dégg. waaw Alpha ñu ngi koy dégg bu baax démb rek ñu ngi déggante. ana euh, sunu ana sunu yaay. waa sunu yaay mu ngi fi. mu ngi fi sunu yaay mu ngi leen di ziar bu baax di leen béggee moom it. famille bi yëpp vraiment di kontaan lool aussi seen liggéey bu baax ñuy gis ne yéen a ngi jàpp ci liggéey bi bu baax. non seulement que euh, man rek mais famille bi yëpp yéen a ngi jàpp ci seen liggéey et que loolu gis nañ ko te kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax. non ñoo ko bokk suñu mbir la. ah mu ngi noonu yow moom da bokk yow moom ñoo bokk lépp. yàgg yàgg na te te ñoo bokk lépp. waaw ñoo bokk lépp ñoo bokk maam waaw famille lépp benn la. lépp benn la jaajëf moomoo kon ñu ngi lay jaajëfal donc euh, tey euh, mën nañu ñëw ñu waxtaan tuuti aussi tamit si li nga xam moom ngay waajal albam si mois de mars bi kañ la war a génn. waaw le cinq mars incha allah. war nañ génn album bi. dayeur am na single yoo xam ne jot na génn gars yi ñu ngi koy déglu bu baax a baax a baax a baax a baax euh, génne nañ ci période Saint-Valentin bi rek benn morceau Chéri ko Chéri Coco ah gis naa ne aussi. Sénégalais yi bëgg nañ ko fi mu ne ñu koy consommer bu baax a baax a baax parce que aussi ñu ngi ciy def ay challenge yu bare bari vidéo yi di daw fépp xam nga ñu ngi may woo partout dans le monde gars di apprécier bu baax kon nag euh, mu ngi noonu li naan cin daal su na cin bu naree neex su baxee xeeñ su baxee xeeñ waaw mu ngi noonu kon daal en tout cas gars yi ñu ngi ñu ngi commencé apprécier liggéey bi te xam naa ne yi ci gannaaw incha allah moo moo moo dàqati li si gannaaw lan lañ si mën a xaar comme genre musical. maa mais musique yëpp ah. musique yëpp ah. parce que tamit aussi waaw musique amul frontière. Hmm. et que euh, world music la ñuy def euh, lépp loo xamante ne rek euh, yaakaar nañ ne aussi sénégalais yi dina leen neex mm-hmm. dina neex aussi àdduna euh, dina la may ouverture mondiale dem nañ liggéey ci bu baax a baax a baax def ko ci album bi kon daanako dafay nekk benn crème lay nekk waaw dina am mbalax nag mbalax bi dina saf lool ndax ku ne xam na ne mbalax la ñu am te sénégalais yi mbalax lañu ñu bëgg mais aussi dinañ découvrir yeneen yeneen sonorité yeneen sonorité waaw ci Momo Dieng Momo daal dafa ñëw fas yéene wane polyvalence am si musique voilà c' est ça tamit aussi li ma ko waxee sànq musique moom amul frontière te que ñun am nañ ci ay nawle yoo xamante ne ñu ngi en Afrique waaw lu ci mel ni Nigérian yi ak Congolais yi ak ñeneen ñooñu yëpp xeetu dëkk yooyu yëpp suñu ay nawle lañ te gis nañ ne seen musique mu ngi avancé àdduna bi ñu ñu leen di déglu donc pourquoi pas sénégalais yi am place boobu ci musique donc ñun Momo Dieng loolu moo ko tax a jóg muy xam na ne am na nawle ci musique du ñu yem fii kese mais xam nañ ne musique weesu na foofu parce que musique euh, dafa jaay musique àdduna yëpp dañ koy déglu donc euh, boo ci nekkee bul ci am limite pour man bul ci am limite lépp lu mu laaj danga ko ciy def ok lépp lu mu laaj dañ ko si def musicalement mm-hmm. def nga ko si euh, côté thème est-ce que mën nga ñu may tuuti rek si quelques thèmes yi nga xam ni mën nañ ko si xaar waaw thèmes yi bari na ah. mm-hmm. bari na ay thèmes thèmes yuy boole mm-hmm. ak euh, daanaka loolu moo fi am booy booy booy booy booy def da ngay def aussi li nga xamante ne sa génération génération bi nga tombel actuelle loolu la ñuy dund et yaakaar naa ne dem nañ gëstu jitam yooyu yëpp te loolu yëpp mu ngi ci biir album bi. ok mu mhm. ngi ci album bi mhm. kon kañ lañ ko war xaar. Euh, le cinq le 5 mars incha allah le 5 mars. yàggatul yàggatul yàggatul. <laughs> Ah, kon da baax na kon ñu ngi lay souhaiter rek euh, un très bon vent comme ñu ngi koy waxee. une réussite totale. mu jaar fa mu daan jaar rek. wala mu romb ko sax. amiin yaa rabbi eh, ñu ngi lay jaajëf lu baax a baax ba moom. jërëjëf moo di le mot de la fin lan ngay wax soppe yi pour album bi. waaw di wax soppe yi album bi mi ngi ñëw nañu def nañ naan def xam nga bu génnee ñu dem jënd ko ndax euh, bëgg nañ jaay tamit ay exemplaires yu bare bare bare bare bare ah ndax euh, defuñu album rek mais disque lañ def te. Euh, pourquoi pas sax ñu jaay exemplaire yu bari ba mu mu jur disque d'or amiin kon euh, loolu la ñuy ñaan yàlla bu génnee ñu ngi ñaan sénégalais yi ak partout dans le monde képp koo xamante ne fans nga ak képp koo xam ne melomaan nga rek mm-hmm. euh, ñu ngi ñu ngi lay tàllal loxo di la wax nga dem jënd ci album bi incha allah le 5 mars est-ce que am na fu ñu mën a fekk moomoo si ay soirée fi lekk album bi di génn waaye après album bi également est-ce que tamit am na benn plan de de de bi nga xam ni surtout nag si ay ay soirée sax parce que gars dañuy namm yooyu. waaw mu ngi noonu waaw xam nga label bi moom déjà album bi buy génn rek dafay ànd ak ay programme yu bari. waaw album langue bi muy ñëw dafa àndoon ak programme donc bii aussi mu ngi teg nañ ay programme xam naa incha allah yu gën a mag. Mhm. waaw yu gën a mag yoo xamante ne dina nekk sax dina xaw bett gars tuuti mais mu ngi noonu incha allah. album bi day àndaale ay yëfam te ñu ngi programmé dinañ tëgg fépp ci ndakaaru ak Sénégal yi yëpp ba pare incha allah dinañ def ay tournée internationale waaw ci gàttal daal mhm. bon dina ñëw àndaale programme programme lañuy ñuy àndaale te dinañ ko suivre ba mu mat incha allah communication bi ak promotion bi xam naa ne moom dama koy bàyyi ak sama la rek ndax ñoom yàgg nañ ci te waaw lu ñu mës a génn rek promouvoir nañ ko communiqué nañ ci ba àdduna yëpp jot ci nga xam naa ne bii incha allah day jowgati bu soobee yàlla. jaajëf ba moom jaajëf.